bon enfin xam nga JOJ événement mondial la te aussi euh, lu am solo la ndax c'est une première en Afrique moo tax ba au niveau de la lutte bi nga xam tànn bokk na ci discipline tànn ñu war a teewal Sénégal ñu ngi ci waajtaay di tànn xale yi nga xam ne au moins am loo xam ne am nañ ko ci bëri ak ñi nga xam ne aussi ñu fi ñu leen di perfectionner mm. ndaxte nekkul. loo xam ne mag ñee ko moom c'est pour la jeunesse am na tranche boo xam ne moo nekk ci par exemple les scolaires par exemple douze ans treize ans quatorze ans avec quinze ans actuellement ñoom la ñu nekk di regroupé dañ jéem a euh, tàggat pour ñu nekk vraiment au top niveau d'ici deux mille vingt six parce que nag euh, Sénégal euh, war na gagné ñaari pari bu organisation bi d'abord mais aussi bu participation bi waruñ dem rek pour teew nekk ay figurant bu ñëwee Afrique ñëw Sénégal Sénégal dafa war a am ay médailles yu baree baree bare te làmb ñi nag bokk na ci discipline am yaakaar nañ leen ci pour que ñu indi réew mi ay médailles. ci liggéey bi ñu ngi ciy ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ci waajtaay bi d' abord identification bi ndaxte xam nga jeux yu mel noonu mën nga sélectionner euh, cinquantaine d' enfants mais xam ne da nga am état civil bu wóor xam nga demee ci fin ba ñu naan ñi étage bi nii la demee wala ne aussi xam nga yooyu dañ ci dund. yéen mënu leen def comme football ay test IRM ou bien vous vous n'avez pas vous n'avez pas la possibilité ou bien vous n'avez pas les moyens. yoo parler de moyens à un à un certain niveau on ne parlera pas de moyens parce que ce sera l'État qui va. qui, qui va qui va, va gérer tout ça d'accord sinon c'est le comité olympique. qui va intervenir pour ça mais le travail de base c'est d'abord c'est le CNG de lutte moom mooy njëkk a liggéey liggéey boobu te loolu indi lu wóorugum xam nga nga dem ba ña nga yaakaar ñu ne dañ leen di rejeter. loolu catastrophe la te bëgg yegg foofu mais fi ñu ngi def vraiment defoon nañ benn un premier casting def un deuxième léegi maintenant ñu ngi waaj benn boo xam ne c' est pour en début octobre pour ñu dajale xale yi nga xam ne am nañ d' abord ay pièces wóor te aussi xarañ nañ ñoo xam ne leen di perfectionner rek et puis ñu dem. mais ci xale yooyu noonu. Mhm. xam nga amoon compétition bi ñu doon wax UASU tey loolu disparaître na kenn gisatu ko. léegi man sur le plan la détection boobu noonu laa bëgg léegi c'est devenu ah fédération léegi euh, ndax hmm. génn ngeen Dakar waaw pour tey xool ces talents là mais justement euh, gis euh, nga premier groupe bi on avait fait appel à candidature toutes les régions du Sénégal ñoom lañ woo ne nañ indi góor jigéen tranche bi lañ soxla am ñu ñëw ñu ñëw ñu testé leen d'abord mais ñu gis ne effectivement am na ñu ci yoo xam ne am nañ place pour rester am na ñoo xam ne également il fallait les les remettre ñu ñu ñibbi am na ñoo xam ne kayit yi ñu indi woon baaxuñu woon xam nga bëgg Sénégal ak bëgg bëri bi am na ñoo xam ne seen kayit rakk mais après enquête lañ xam ne ñoom ils ne sont pas vraiment titulaires de ces pièces là alors ñooñu aussi ñu ñu renvoyé leen bon donc benn c'est un petit paquet mais on veut on veut gonfler un effectif boo xam ne dañ leen teg vraiment leen tàggat leen tàggat mais au finish maintenant on def un un choix am très pratique nga xam sax dañuy yóbbu sa bitim réew leen di indi mais en attendant on va les euh, interner à l'arène nationale def sport étude pour les scolaires les ñi nga xam dañuy jàng ñi jàngul aussi ñu jëmal sport métier donc loolu laa ci loolu lañ taxaw quoi bëgguñ leen ñu indi rek taaj leen foofu et puis leen lu bëri leen uniquement mais on passe également à l'après 2026 n'est-ce pas pour gérer la carrière n'est-ce pas et des enfants